set laa la wax nga def si ñaari nen ak yéen a ngi ko def waaye Abdou Fall moo ngay jaay yàpp. Moussa Ba ngi nii moo koy indil yàpp chaque jour. Abdou Fall jël nañ ko Moussa. ak maam Seera Fall. nga ma jaay yàpp. li muy jaay dafa neex laa la waxal nii. da ngay jàng bon mbokk yi comme yéen ñi ngeen ko gisee nii tey ñu ngi fii ci mayga bi nga xamante ni dañ ko doon tuumaal ni day jaay yàpp muus mu am benn jeune bu dëkk ci gox bii di Diourbel dëkk Thierno Kandji dikk teew am ñu fi fekk ci mayga bi paye leen ñu daal di reer gratuitement li tax nag mu def ko mooy pour daal di relancer waat mayga bi gën ko yokkaat doole ndaxte mouvement bi mu jiitee muy mouvement dekkil Diourbel donc lépp loo xamante ni mi ngi Jurbel euh, te di dox ñu war koo fakastal moom da koy jë yëkkatiwaat ngir mën a dekkil loolee nga xamante ni moom lañ doon xaar pour mu faatu Mayga bi bokkoon ci loolu mu dikk fi tey ay maire ñu ngi lay nuyu nga nuyoog ñi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan euh, waaw jaajëf Ba Modou maa ngi leen di nuyu di leen ziar donc euh, di leen remercier ci disponibilité ak Gakou aussi maa ngi leen di nuyu Euh, lu waral aussi suñu ñëw tey fii comme li nga ko expliqué euh, maa ngi tudd Aymerou Ndiaye nekk coordonnateur mouvement Dekkil Diourbel Defee Neneen donc suñu combat aussi euh, wax nañ ko à travers quelques maisons de presse ici wax nañ ne ñun tey suñu objectif mooy jéem a fexe Dekkil Diourbel jàppale jeunes yi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi nga xam ne ñoo nekk des nécessités ah. vidéo bi nga xam ne moom lañu gis Euh, dafa nekk benn vidéo bu viral mu nekk loo xam ne lu ñu naqarlu la parce que tey jii gars yi ñëpp gis nañ cette vague de jeunes yuy quitté Sénégal di dem euh, dans les dans les pirogues di dem di def immigration clandestine donc tey moom mënoon na bokk ci ñooñu wala mu nekk fii jël ñu fu jàmb bu yàlla defee mu samp yëfam di ci góorgóorlu te lu ñu dajee vidéo bi ñu xamal ne def fi sax 4 mois nit ñi wax loolu après ñu gis ne réaction yi nga xamante ne moom lañ jot a def di leen ci jaajëfal yéen waa waa Baol Times ak Baolcom donc di leen jaajëfal ci euh, ni ngeen ko ci jàppale mais dañoo xalaat ne euh, commentaire yi nit ñi di def du ñëpp ñoo koy lire et que aujourd'hui le challenge moom mooy fexe vraiment ñëw fii ànd ak sunu ay xarit ak sunu ay ndaw sunu ay jeunes frères ñëw jënd ci moom li muy jaay. pour wan nit ñi ne li muy jaay amul dara lu ci nekk et ñi nga xamante ne daan nañ fi jënd mën nañ continuer di fi jënd et bëgg nañ au delà de ñi nga xamante ne ni jublu ñu fi woon sax ñu bokk ci ñi nga xamante ni dañ jàppale tey di fi ñëw di jënd si si moom donc vraiment loolu moom moo nekkoon tey suñu ay tànk fii ñu kontaan si trop aussi bi ñu ñëwee tam dal nañu te gis nañu c'est un jeune qui est donc di alerter rek ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi qu'ils fassent davantage attention parce que mën nañu yàqal nit loo xamante ne ni euh, du yomb pour ñu defaraat ko le mouvement Dekkil Diourbel c'est un mouvement boo xamante ni euh, ñëpp la fi nekkal parce que kii xamuñu ko xamuma sax turam déjà ñun on n'a pas été présenté donc dañu ñëw rek jël initiative jàppale ko bu subaa aussi yàlla bu fi li amati mais bu ñu gisee lu mel nii aussi pare nañ pour ñëw accompagner nit ki ci li nga xamante ne moom lañ am comme ay moyens tey damaa kontaan kontaan tey sax duma danoon sax parce que dama ko kontaan tey moom. Mm-hmm. parce que gars yi yëpp ñoo na fii nii. Mm-hmm. lekk lekk bu baax. Mm-hmm. gis nga yàpp bu baax. Euh, nen baax la brochette yooyu yëpp bu baax la. loolu kontaan bu baax la. léegi ah. nag parce que loolu kontaan naa léegi. merci courage. merci